am na fu mu lay yóbbu waaye ku ci daan am na fu mu lay yóbbu kon mu mel ni kenn ku ci ñoom ñaar soxla na ci victoire Yessa ngi wax ñoom di leen wax li làmb nangu ak li làmb tere ndax saison bi léegi chaque saison ak contexte yu génn ci biir CNG. laay Dakar gi ngóor bu ngeen Yes Ndoye laaj na ay assistant daal di leen par pare ngeenam déet nee na laay Dakar gi pare nga nguudam sifle na génn seen kaw nguudam bu génn sànni leen mu jël laay Dakar gi laay Dakar gi daal di jat bi ngay jat daal di koy uf daal di ko ñoom ñaar nguudam bu génn ngi taxaw laay Dakar gi di ngeen jege de di ngeen jege luurde bu ngeen laay Dakar gee ngi avancé dem ti kanam laay Dakar gaa ngi arriéraat pour nguudam bu ngeen ti ñëw waaw yees doy nee na jege leen yéen ñaar nguudam bu ngeen waaw mu mel ni tey dañoo mel ni ñoom ñaar dañoo bokki tegtal ndax kenn ku ci nekk da ngaa ngemboo lu weex waaye da nga kaa toccal waaye mu mel ni tey jii bu nangul ngembam lu weex tal laay daxaar gi noonu la def waaye mu mel ni kenn takkul kenn jaajuwul ci kaw waaw boo xoolee fu mu ne nguude bu ngent benn dafa fii euh, wëñ ci diggante bi mën naa wax ne mu mel ne euh, euh, sor la waaye fi mu nekk nii gis nga laay daxaar gi wàcc na mu ngent fu mu nekk tey am na loo xam ne moom lañ ko yabe góor si ginna mu mel ni ñoom liñ nar nii bokkut ak li ñu waxante woon. ah lu ñu waxante woon. waaw laay Dakar gi ak nguur bu gent dañoo xas-xas loo woon. Ah. kenn ku ci nekk ni ne maa la mën laay ni ko lamb moo waxul dëgg waaye lamb boolewuñ ñun ñaar nguuda bu ngeen ni ko dama def samay preuve ba fekk li si la ci kaw kon lamb boole nañu mu mel ni nguuda bi muy jógee fii ci stade bi dafa niiloon ak bur àndal ci fële ci terrain walidaan mu mel ni Laye Dakar gëj na bëre kon mu mel ni tey nguuda moom mu jël laay Dakar gi ci biir terrain bi waaye nag lan mooy xew yàlla xam luy xew waaye Laye xeex bi arrangé wu ko nguuda xeex bi arrangé wu ko ndax mbërum tànk la waaye nguuda bul sigi Laye am na secret bu mu am boo xamante ne am na foo xam bu la fa tolloo ak noo def ñàkk. ak nguuda day fu mu nekk laay Dakar gi de dafa mel ne moo tuuti. nguuda xaw koo ron waaye nag muy combat nguuda wàcc na lan lay def nguuda wàcc waaye ba léegi kur nguuda ngi sànni waaye ba léegi dafa kii rek waaye dara amagu fi fu mu nekk a ayees nee na dellu si leen dañ leen a fay suñu xaalis sii di def leen a fay laay daqaar gi ak nguuda bu ngent lay daqaar gi wàcc na ay waaye daqaar benn yoon lay saf de laay daqaar gi nguuda bu ngent ñoom ñaar wàcc nañ nguuda fekk si na ko ci wàcc bi waaw Ngouda fekk na wàcc na laay Dakar gi laay Dakar ngi puus mu ngi puus pour tromper Ngouda waaye Ngouda xam na lool daggaat na léewtoo bi laay Dakar gi Ngouda doxalal ba ci kanam laay Dakar gi Ngouda laay Dakar gi Ngouda mu nekk ñu ngi léewtoo léewtoo bi léewtoo bi diig na gëmu leen li ngeen di def coupure de courant am na arrêté waaw lii doy na war lii doy na war insécurité ndax lii nii moom boo bëggee dëgg-dëgg kenn xamul lii lu mu doon kenn xamul lii lu mu doon tor ci tàkkandoo na waaye taxul kenn gis tor ci tàkkandoo na waaye taxul kenn gis ah bu courant gaaw te ñëw ngeen yaakaar lamb ji du yam fii. taamuwuñ ko. est-ce que lii ay xoo. taamuwuñ ko. est-ce que xale yaa R100 coupé na. ah r na. kaw tribune baa nga lëndëm këriis. lii kenn mës a gis lu mel nii. lu mel ni lampi chinois yi a fi nekk di tàkk. waaw fi mu nekk nii ah, jaadu na yenn saa su événement yi amee nii délestage bu fekkee be bu fekkee bettu leen hors délestage la ñu wax. ci waaw mu mel ni nag Baba. fan li courant ñun ñuy liggéey ci courant xam nañ li courant di coupé bari na torop. fan yii li courant di coupé bari na lool lool lool lool lool boo nee ne am na loo xam ne ñu ngi koy waajal bu ñëwee du ñu coupé de waaw loolu de bu ñëwee incha allah dinañ ko def ba mu jeex te du am kon nag tey jii boo xoolee bi. ni mu mel. li po li po li ma la lampi tubaab yi rekay tàkk. yooyu tàkk la lampi chinois yi rekay tàkk. mooy portable li waa naan waaw parce que insécurité la. waaw ndax li dara wóoratu ji yu mel nii. dara wóoratu ji niñ fi mel. ak autorité yi ñëw. dara wóoratu ji service d'ordre bi macha allah. waaye nag ñoom ñu solu tenue sax ëpp. ñun indi xam ne ñun indi nañ suñuy moto. gars yi tegal ñu ko fële. fayee ku ñu téeméer. di ñu gardeel suñuy moto. nañ ko téye ba nga xam ne moto yi bu mu nangi faaw. mooy dëgg nag ah, parce fayee ko noonu nag boo fayee ko daal da koy téyel alalam. sama moto baa nga de per. xam ne ko de. Eh, waaw nañ ñu ko téyel ñi kenn bul taal mëta te lamp tàkkul bu kenn jël mëta te lamp tàkkul. donc ah. secteur R100 daa coupé. R100 dafa coupé. r mu mel ni sabari sàcc na mu mel ni sabari sàcc na ci kaw ah. ñu ngi wan ni li ma jaaxal du loolu de man tiir bi ko damaa gis mu nga leer nañ lan moo ko waral wala ñun dañoo bokkul ci éclairage bi ah ah TV moom TV moom nañoo may lumière fii ci digg enceinte bi. Père Baba. délestage bi lu mu lay jox. waa xam nga kii wax dëgg yàlla dañoo dépassé nag lii dépassé manifestation di am ñuy def ay délestage yi. tey fii dafa waroon doon hors délestage waroon dañoo jël manukaay yëpp parce que tey guddi la te làmp la te ñoom ñoo ne lépp yenn saay ñoom ñooy am li ñuy wax naan dafay am yenn saay violence heureusement ba nga xam ne public bu Thiès public bu yaru la suñ leen raxul rek yu bari tey mën na nekk nii ba jóge fi ba làmp yi dellu siwaat ak jàmm sax waaye manifestation yi bu amee dañoo war a def hors délestage parce que lii daal vraiment dëkk bu ne dafa développé war na dépassé yi Père er Baba li nga wax kenn mënu koo dindi waaye tey lii ni mel bu doon national nationale la fan la nit ñi jëm. yaa ila arène nationale heureusement dañoo am matukaay parce que groupe bee fay nekk dañ koy déclenché parce que am na yenn yoo xam ne déclenchement automatique lay yor gis nga lamp yi ñëw na fu mu nekk nii waaye gis nga heureusement moo tax gis nga kat day wax ka nekk fa la dégg ko waxaale ñeneen ñi ne def leen leneen loolu mooy suñu ku ñu ci mere it ñun luy defar moo tax ñuy wax. luy defar rek waaw luy defar rek moo ci suñu mbir wax ka day wax ba ñenn ñi dégg ko tànn ñeneen ñi ci des ah xool leen ndax saa de course ñu ngi def lambi direct boo xamante ni par youtube partout dans le monde ñoo koy kon su courant bi coupé ñu kon ne di ko ñaxtu deru sénégal du rafet deru thiès du rafet deru sénélec du rafet mu mel ni arbitre thiès ndoy mu ngi toog di waxtaan ak ñoom diggante nguuda ak laay daqaar gi waaye bu arbitre soufflé fañ jëmoon fa lañ jëmaat moo tax ma la lambi tegtal la yaay suufleegul mais dañuy kenn ku nekk sa ci mikaay de kenn dañ laa wax ni bu ko boot. waaw ku mu nekk loolu moo leen war. waaw fu gi bul boot sa ci mikaay waaye dañuy booy nguuda bul boot sa ci mikaay yi. monsieur policier monsieur policier. waaw kay mais. Eh, noonu. laay laay gi ak nguuda bu ngeen. ñoom ñaar waaw mu mel ni ñu ngi lewtoo lewtoo bi gën naa jige lay mu mel ni ñu ngi lewtoo lewtoo bi gën naa jige waaw waaw mu mel ni ñu ngi lewtoo lewtoo bi gën naa jige est-ce que dina déclencher am déet mu mel ni ñu ngi lewtoo lewtoo bi gën naa jige mu mel ni ñu ngi lewtoo lewtoo bi gën naa jige nguuda baral na ay jéegoom lay daxaar gi waaye lay daxaar gan koy tëru di ko xaar lay daa am bis boo xamante ni daa daa am pexe boo xamante ni nguuda lépp loola waay yabe mooy na nga dal yaakaar naa loolu lañ la yebee ndax laay daxaar gee la jiitu ci làmb waaye nag làmb dabante la du ak maas bu biir day xëy aussi ngóodo bu ngent laay daxaar gi ngóodo bu ngent laay daxaar gi ngóodo bu ngent après day xool chef laay daxaar gi ñoom ñaar waaw laay daxaar gi nguuda bu ngent ñaar mu bu ngent sonal gi ndax buñ day doxi waaw laay Dakar gi nguuda bu ngent laay Dakar gi nguuda bu ngent ñoom ñaar dagg nañ leen taux bi di dox à côté. latéralement dañ leen kenn ku nekk moom boot ci mi gi nguuda bu ngent. moo tax man la dañoo bokki tegtal. laay gi nguuda bu ngent. nguuda bu ngent. ak laay gi. nguuda bu ngent boo xoolee ci mi mu ngi nii. Ah. laay Dakar gi ci mi gaay mu ngi ne kenn ku nekk biñ jàkkaarloog. waaw ah. yéen biñ toog xale yéen nga da ngaa bootoon sa jumikaay. waaye làmb ji moom xaw a gën a yàgg gum de laay daxaar gi nguuda bu ngeet nguuda daa bëgg a xeex te laay xeex bi gën a lu ko ah laay daxaar gi jàpp ko arrangé laay daxaar gi jàpp ko arrangé waaye nguuda est-ce que am na xeex gi nguuda daa bëgg a fiir laay daxaar gi waaye na moytu ah nguuda laay daxaar gi taxaw na est-ce que nguuda bu ngeet li nga wax repère yi est-ce que am ah lu ñu def mi temps mi-temps mi-temps mi-temps mi-temps Ardo liggéeyul dara tey Ardo yàlla bu mu liggéeyati Ardo liggéeyul dara Ardo liggéeyam ci lamb mitit la metti bu rëy Ardo liggéeyam ci lamb mitit la metti bu rëy waaye mel ni fii ngi jox laay ndox mu naan kon su nguuda bu ngent mu ngi wax ak moom di ko jox ndox mu naan mu mel ni combat bii bu jeexee diggante Soxor Gele la ak Modou Anta numéro 2 mu mel ni le grand champion Modou Anta ngi fi làmb joj nan la koy dundee. ndeysaan hors d'œuvre ngi noonu balaa plat de résistance bi di ñëw hors bi la ñuy indil muy ndeysaan ki nga xam moom mooy Anta 2 ak Soxor Kele nee nañ daa mën a bëre bañ tuddee ko Soxor Kele mu ne ko man si turam na laa jaar dafa mën. waaw mu mel ni mu mel ni mu mel ni Ousseynou Seck. mu mel ni Ousseynou Seck ngi dugg ci biir di ki nga xamante ni mooy euh, nguro bu ngeen mais est-ce que loolu sport may ne ko loolu may ko parce que dafa am fu mu bokk si mu bokk nag si ñëwee fii dafa am beneen étiquette boo xam ne moom la yor étiquette boobu mu ko may moo ko mayul mu dugg ci leer lenn siflewaat nañ ci diggante laay euh, daxaar gi ak ki nga xam ne mooy nguuda ñoom ñaar. mu mel ni nguuda dañ koo conseillé ni ko daawal nga dem jàpp laay daxaar gi lamb ji jeex mu mel ni nguuda nguuda ngi door gauche nguuda ngi door gauche laay arrière bi ngay arrière baaxul. da lii la soxla woon lii la soxla woon lii la soxla woon lii la soxla woon lii la soxla woon lii la soxla woon. Gouda bu Gouda ko. daan lamb lamb arbitre na. day woote waat. Yes nee na ñëw leen. waaw looloo jaadu. waaw parce que amoon na fi léegi. maanaam Yes dafa soufflé ba arrière. waaw sud bi doo am. waaw moo tax comme que kur soufflé bi jóg na fu mu nekk gis nga avertissement. waaw d'accord naa ah, avertissement waaw génn mu génn am avertissement génn moo tax. Yes soufflé. waaw ñu génn woon du soufflé. soufflé day génn seen. waaye Ngouda dootul taxaw. Ah. day accéléré laay. lu tax waaw xam nga lu tax. Ah. li tax muy accéléré mooy peese na ko. ba xam ne laay du xeex ak moom daa bëgg a bëre ak moom te moom daa diis ci kaw laay. Mm, waaw guuda laay laay Dakar gi <laughs> laay Dakar gi guuda guuda laay Dakar gi ah wàcce na léewtoo bi de waaw maanaam heure bu ñu jàppantee mbër contact bu jàppantee mu mat une minute. ah day xoox ba day dégg day dégg léegi premier souffle day génn après naa rek ngay bëgg te kenn du la ko may waa xeex bi ci kaw arrangé wul guuda de wax ko sànq arrangé wu sa de waaw arrangé wu soo de la la la la kay waaw laay dul nangu loolu laay da koy déglu laay daa gëj ci lamb laay daa perte ay repère da perte ay repère ci lamb perte ay repère ci lamb perte ay repère ci lamb ini nuyu Baye Ndiaga Badiane di ko wax ni combat Laye Dakar gi mooy daw diggante moom Ngouda bu Nguel def nañ premier 5 bi ñu ngi ci deuxième 5 bi Laye am na avertissement ndax dañoo jàppante mu génn arrière génn saako yi Yes Ndoye soufflé jeexal combat bi Ngouda jiital pied droit fausse garde Laye Dakar gi jiital pied gauche garde normal ñu lewtol andrit sigi Ngouda sëgg daa bëgg a toqi loolu lay Dakar gi pour mën koo buub. deuxième avertissement. kon mu mel ni tey jii. laay da ngay attaqué mbaa nga ñàkk combat bi par avertissement. kon dañoo bëgg ñu daje. waaw dañoo bëgg ñu daje daa bëgg wuñu fi. ndax dañoo xas-xas loo woon. gi ni ko dugg sa morom. ni ko dama pour ba yegsi fii ma yegsi. ndeysaan kon ñoom ñaar buñu dikkee ba fii bëre amul. nguuda gën a xale. waaw léegi nag nguuda moo waroon na accéléré combat bi. moo gën a féete xale. dox ci kaw laay waaw. nguuda laay dina nii ah. nguuda buy dem na xam ne muy demee. waaw néew bu mu dem de. waaye suy dem na xam ne muy demee. laay bu dee teeru na bu na xam ne muy teeroo. Nguuru dox latéralement fekk ko fa. avant euh, lamb ji euh, laay Dakar gi guuda la euh, laay Dakar gi la gën a mën a yóbbu fenn guuda parce que laay Dakar gi moo am lu muy wuti. parce que nguuda li mu war def def na ko su daanee nguuda yóbbu ko fenn. mais laay Dakar bu gaadee nguuda suuf daanee fu mu nekk def ko yóbbu fenn. kon lu am solo la ñoom fi mu nekk. kon mu mel ni laay daa gën ci daa gën biir arène bi perte ay repère xëy na tey jii innovation bi am laay mu ngi doog a bëre ba mu gëjee ba rek léegi yàgg na waaye nguuram maysul laay pakete la te loolu si liir naa ko ci combat bu yàgg. lamb ji diggante nguude laay Dakar gi la ñoom ñaar kenn ku ci ne mu ngi ñu ngi ci doon waxtaan ak ki mbokkam def sa open presse kii def point de presse ñu waxtaan ñoom ñaar xas-xas loo kenn ku nekk wax li nga naral sa morom waaye tey biñ fi ñëwee daa ñu waxoon. Fass Balla lu tax loolu looloo ma jaaxal xanaa waxuñu ko woon wax xas la woon nañ ci xanaa du du dëgg la ñu waxoon doy na waar am loola ci signature la rek ma ne ko doy na waar nañ ñu dëggalal loolu lambi léegi si mu ngi bëgg a yàgg dañu ko xas-xas loo bu lamb jëlee ñu ne ko fang tegal la li nga waxoon fii ci caméra bi ah est-ce du ngeen def noonu yenn saa yi xam naa foofu la ñuy mujj ne ko yaa ko fi wax vaar da ngeen di vaar ah vaar mënut a ñàkk ci lamb vaar xale yi mais yaa ko fi waxoon la Bombardier waxoon rek man sama lamb waxoon naa da koy paqueté waxoon naa da koy paqueté waxoon naa da koy paqueté waxoon naa da koy paqueté waxoon da koy na naax lay Dakar gi lay Dakar gi ndengeñ na ko sëq ci devanture bi nguur naax na lay Dakar gi lay Dakar gi ndengeñ ko nguur daan koy buux pour mu génn ci biti mais yees nooy loolu na ngeen ci wax mbër du jàppanteeg nit ñi ko nga koy pousse pour mu génn ci biti su poussé dina jël avertissement kenn ku ci nekk si ñoom ñaar nguur na def ndànk nguur a defal ndànk nguur a defal ndànk laay daxaar gi laay daxaar gi laay da gi nguuda laay daxaar gi nguuda mu mel ni tey giri bi giri bi sonal sonal nañu mu mel ni giri bi sonal nañu su làmb ji yemee fii lay Dakar gi. day ñàkk day ñàkk ndax fi ne nii am na trois am benn avertissement waaw day nekk trois avertissement. waay làmb ji nga bëre lu mu am jël. bu ko deful noonu day xaalisam day jeex. day bëre lu mu am ah, day jeex. laay Dakar gi kon sëñ bi naan ko tax dalal Ngouda bu Ngent yaa moom combat bi nag fu mu nekk. Ngouda bu Ngent kon su Ngouda bu Ngent mu ngi naan Ngouda bu Ngent dalal mais lii c'est lamb ji jeex na kon. Hanya. waaw mu mel ni Laye Dakar gi Baye Ndiaga Badiane Laye dafa am ñetti avertissement Ngouda am benn avertissement nyar. moo leen départagé ñoom ñaar ñu jël victoire bi jox ko Ngouda bu ngent mu nekk mat ak rak ci biir lamb lamb nii rek la waaw mu des nag ñaari combat yi nga presque la fi la fi mu nekk ci diggante Modou Anta 2 Soxor Clé Laye Pythagore ak Laye Goté mu mel ni tey jii sax Laye xeex na xeex boo xamante ni wax dëgg yàlla gën na koo xeex ci làmb mu mel ni nguuda tey jii daa ñëw pour défendre làmb ji rek di buuxee ngir. mu mel ne prédateurs yi nekk ci tribune ba tey tàkkul waaw waaw fu mu nekk day xam nga moom yenn saa ñaar yeey tàkk yeneen yëpp dem naar moom waaye tribune bi daal la dem waaw dafa lëndëm léegi il faut mu ñëw ndànk-ndànk mu mu nekk waaw lëndëm na lool dara tàkkul dara tàkkul li dara wóoru projecteur yi daal li dara wóoru ji dara amul sécurité ndax sànq bi lamb ji daw jékki-jékki nañ gis ay xeer te xamuñu lu waral xeer yi wala ca kanam ñu ngi ah, toog di jàkkaarloo xeer daf ne dañoo nekk ci lëndëm te dara wóorul te man ah, bëgguma daw gis nga ah. xeeri guddi kat jar naa daw père Baba waaw ah, gis nga li tax yenn saay du ma nangoo ay nit yore mbëte yooyu di ko indi ci guddi gi parce que dama naan soo gisee fereen fu gën a sori bu gaaree ko fa nga xam ne boo génnee rek ñoxlu rek jaar ne dem yëf parce que yu guddee na te sécurité fu fekkee lamp yi fay na wax dëgg yàlla sécurité bi du am. su mel ni 21 heures su mel ni 20 mu yang ni ñu ngi bëgg taxawal spécial bi diggante Modou Anta numéro 2 ak Soxor Clé mu nekk lamb joo xamante ni doo mën ni lamb ji yàgg la. doyoon na grand combat waaw loolu rek doyoon na grand combat mu mel ni kon Sidi daa boole ñaari grand combat tey. ñi ngay ci ci ak kon rafet na pour sargal ko. waaye ndoo ko ci kaw tribune bi ndax moo ko fi yàbbi supporter noonu la lamb di doxee noonu la ku ñëw ku aayawal sa mboome cee aaye lamb noonu la bu ñu aaye war a wal suñu mooy jaxaaw tey mu àndee gars yi dem nii lañ doon waaye la Youssou Ndour le buggi ndeysaan ba mbay bam demee Dakar contre moog Ablaye Diop